géej ga lay wax ne baxarun moom de géej la basiitun goo xam ne gu tàlli la xam nga ne loolu istiaara la baxaru basiit baxaru la ci buxuuru cheru yi mooy mustafilun failun moo koy way ci la way xawsul bariyati waaye ma ngi ca namu tamit ne géej ak seexu tijaan ga géej la gog dafa tàlli bu ko defee nag di géej goo xam ne tabaarakallaahu tàlli na lool euh, dégg nga ko baxrun basitun euh, tàlli na fekk na mooy mooy tàlli ga lam ca namu mooy tasaaroo ga tariqa bi tasaaroo na mboolem ci mu suuf maanaam al muntasiru ala wajhil ardi foo dem ci suuf fekk fa tariqa Seexu Tijaan ba kon baxru basit la tàlli na lool foo dem fekk ko fa mu ne tawilu maddi aji gudd la mu ci distance tawil baxru la ci buxuru cheru yi faulun mafailun moo koy way ilallahi nasku za zamana wa ahlawoo ci la ko way waaye mi ngi nammu ci baxru boobu nga xam ne mooy baxru tawil mooy safaanab lu gàtt mi ngi ci nammu ne tariqaab seex bi timit tabaarakalaaw nim tàllee tasaarooxee ko ni la guddee fu waay mën a nekk loxol tariqa bi fekk la fa ci ay xéewalam ci ay naatalam ci ay barkeelam loolu la ca namm ci tawil gi waaye mu ne waafiruhu ak aji ak aji waafir baxru la ci buxuru saxru yi mu faaltun mu faaltun faxulu moo koy way ci la way alal arja imin faasat tahaaya tujaddidu bil xuduy wa bil achaaya waaye nag waafir gi mi timit li mu bëri ci ay xéewal bëri ko ci ay tedd nga bëri ko ci ay may yoo xam ne ku sëmbu ci tariqa bi rek danga nga da tooy xet ci ay may ci ay ngëneel su ko defee tamit madiidu fatlin aji tàllal la mu ngëneel madiid tamit ci baxru yi la baxru madiid gis nga ko moom tamit way na ko ci boxooram yu bari baxru madiid la ko way ba tey nag mu ne dafa tàll ci ngëneel ngëneelam la fu waay toll ma ngay tàllee ku nekk géej gu lay tëbb fekk la fa saa nga sonn ca waaye sariicun aji gaaw la fil lubanaati ci aajo yi sariic noonu tamit euh, ci baax ci buxuur yi la xalifa way na ci naka noonu tamit euh, mu namu ci nag ak gaaw mooy boo sooboo ca tariqam bi rek dana la gaaw a xeggale sariicu moom la moom la def maanaam waaye euh, ci ci ci buxóor yi la mu ne mu daari un aji niroog laak baxara taaxa géej yonant mu daari baaru la ci buxóoru soxor yi waxatuma niru sax waaye muqtadibun aji dogee la minu ca géej ak yonantu ba fa dogee nga gis tamit na muqtadib ci buxóoru soxor yi la mu muqaaribul wasli aji jege la ma ki jokkale mu muqaarib ba tey ci baxru ci buxóor yi la mutaqaarib faulun faulun mu waaye tamit mu gi tasul baliyaati aji gajj la mu musiba yi mooy gajj musiba yi mujj tas ci buxur yi la ci la ci la way xif euh, bi rubuil bawaal yi wa kaamilun aji mat la waaye ci baxru yi la baxru kaamil ci la way qad ashraqat shamsu sama waxta duha wa huwa moom cheikh suu ramalin borom ak gaaw la suu ramalin borom ak ñàkk la li taati topp yàlla topp yàlla cheikh a ci gën a gaaw ñëpp ramal ci buxur yi la mu sarixul faydi aji berndeel la mu ak bëbb waaye mun mun sarix tamit ca buxur yi la ma ngay bëbbal fii ahli nihayaati ca borom daytal ya kon gis nga ko kenn du xalifa bu xóori cheru yi la tudd mu ci tabaarakallaahu istiaara tudd na ko bu la neexee mën a nekk tawriya muy benn baat bu am ñaari maanaa maanaa mu jege ak maanaa mu sori tudd na baxru ya fekk baxru ya benn bu ne fa am looy firi la muy firi mu melal ko Cheikhu Tidiane ci basid la tawil la madid la sariya la mudaariya la muqtadib la mu mutaqaarib la mujj tas la yooyu yëpp dafa am lu muy firi mujj tas mooy gajji dafay gajji mboolee musiba yi ku jege seex mbaa nga jàpp sare xam ne mucc ci musiba yu bëri waaye tamit muqta muqtada mooy luñ dogee seex kat géejam gi muy tëbb wëlliw dafa doge ca géej ak yonantu gi muy tëbb wëlliw yonantu yi mu daari dafay niru ni mooy firi niroo géej ak yonantu muy tëbbee yonantu yi ak géej ak seex gii muy tëbbee wëlliw dañoo kaamil mooy tekki aji mat waaye ca boxooru seexru ya la su ko defee nag kon yooyu yëpp ma ngi ko cay wax qad ashraqat samsu sama mut mutfaa'ilun mutfaa'ilun mutafaa'ilun mutafaa'ilun mu nga def ko mutfaa'ilun moom la maam xalifa ne qad ashraqat mutfaa'ilun kon yooyu yëpp moom la moom lay wax waaye tamit lahu aji nekk la ñeel ko xafiifun aji xoyof mi na awraaj ci wirdo yi wirdo yu bëri nañ waaye seex a ci gën a xoyof le ñetti téeméer rek téeméer astaghfirullah téeméer salaatul fatiha téeméer laa ilaha illallah mu jeex tàkk boo jëlee ñetti téeméer yi nga boole ko xisaab ko mu jox la radiya moom lay tijaan bi def kon radiyallahu anhu waradu anhu yomb yomb na taalibeb cheikh mu ne yuusilu dana yeggale man képp koo xam ne xat laa sama taqoona ahda kóllëre gi xaqan ci dëgg lil futaa jëmee ko ci hubbeeku yi wallahi ku fasax wirdo wi jël kóllëre ga saxal ko wallahi mu heggale la ca ay ay ay ak ak hubbeeku gu mata mata mat loo bëgg a xam-xam ko foo bëgg a hegg hegg fa tariqa bi pare na ngir heggale la fa yow nag boo ko jëlee te yeggoo fa tariqa baa nga fam nexoon waaye yaa nexut fa nga waroon a ne boo fa nexut timit nag tariqa bi moom du ñëw di la fekk si moo tax mu ne lahu aji nekk la ñeel ko xafiifun aji xoyof wala nga ne xafiifun aji xoyof la loo ñëw bi ne abraad ci wirdo yi yuusilu dana yeggale man képp koo xam ne xan laa sama taqoona ala ahda kulre gi te mooy jël sarta ya di ko xaqan ci dëgg da li futuwaa ñeel hubbeeku yi ashaabu taalibeem ya xazabahum sellal na leen moom Cheikhu Tijaan bi xulal axlaaqi ci tekkaay ci takkaayal jikko yi taalibeeb Cheikh dafa war a xam jikko yu tedd ci la leen Cheikh yar koom naan mu ne ka sabri comme muñ muñ ba topp yàlla muñ ba bàyyi mooy yàlla muñ ba li la yàlla sant nga def ci la nga man muñ ba nga xam ne yeneen yiñ la mooñaale ci nattu yeeg musiba yeeg gàllankoor yëpp nga muñ ko ci wala nablu wannakum bi shay'in min al xawfi muñ ba topp yàlla wastabir li ibadatihi muñ ba bàyyi mooy yàlla wasbir nafsaka ma alladina yad'una rabbahum bil xadaati wal ashi yuriduna wo kon ka sabri muñ mooy genn wàllu diine diine yëpp ñaar la sant ak muñ lu neex nga nga nga sant lu naqari nga muñ moo tax kon képp ku dund muñ rek làq nga sa genn wàll gëm yàlla wala xel meeg lewet ab tijaan day lewet waaye tijaan du nekk ku xiis ku ñaaw jikko aw baslil mu wasaati ak yulli ay ndimbal ab tijaan dafa war a tabe tijaan bu nay lemoo lemu ba law jaalaan néeg ngaa joxe addiya néeg ngaa dimbale ku néew doole néeg ngaa dimbale sa mbokk su boobaa yaa yaa tuddee sa bopp tijaan mais jaan nga doo tijaan tijaan ak jaan dañoo niroo kon baslul ñetti jikko yi lu ab tijaan néew néew war koo jikkoo te ñetti jikko yi ko xam-xam nga jikko yëpp tabe lewet boole ko mën a muñ waaye waaye ñetti jikko yi jikko gënu koo féetee kaw moom na maam xalifa waaye tamit iqaamatu salawaati taxawal julli xamsa yee juróom xadda ñaaxee na xalaa idmaanaa ca dappetoo ko bi suróotin ci sarta fil jamaati mbir muy nekk ca mboolo ya seex tamit dafa daan ñaaxe képp ku bëgg a nekk ab tijaan bokk na ca sarta ya moo juróomeel ba ngay julli julli juróom yi ca mbooloo ma waaye tijaan buy julli yow kenn tijaan boo xam ne jàkka ja kenn du la ca gis wala boo fa ñëwee dang nga caa juux yaa tuddee sa bopp tijaan waaye du tijaan tijaan pire dafay war a bokk ca quartier ba mu bokk mu bokk ci ña man ca jàkka ja ca fajar ya ca tusubaar ya tàkkusaan ya timis ya gee ba ca waxtu ya yëpp mu fonk ko moo tax cheikh dafa daan wax ne bokk na ci sartay tariqa bi ngay fonk julli juróom ya ca jàkka ya mënoo nekk tijaan te doo jullit bañ ne ko ba wirdo ya fa nekk ca gannaaw julli ya bu suba kasee jot yow jiitaloo ñu ne salaatu xayrum na naw mi feeg julleegoo suba doo mën a wirdo boo waree wirdo tàkkusaan fekk jullee goo tàkkusaan doo mën a wirdo kon luñ cay déggee ngay nekk jullit piir door a mën a nekk tijaan piir moo tax mu ne iqaamatu salawaatil xamsi xadda ala idmaaniha bi surutin fil jamaati nga def sarta ya laab ci hadas laab ci xabas suturaal sa awra jublu penku bàyyi wax bàyyi jëf man koo jooxe na ko yàlla bëggee maam xalifa ne man yaddaci kuy hoote alwasla ak joti duuna cheyqi wali sëriñ ah rudda delloof ko xalaa xaab yi ci ay tisanam xaa iran mbir mu aji gëlam fii kulli moo ci mboolem pay yàlla yi ku ne mën naa yegg ci yàlla ta aw ma sëriñ bu mat bu mel ni Cheikhu tijaan bu mel ni El Hadj Abdoulaye Niass bu mel ni maam kalifa bu mel ni Seydil Hadji Malick bu mel ni Serigne Touba mu ne fan ah, fa nga ko waxee dañ lay dellowaan nga xam ne yow da ngay gëlëm rek mos nañ koo laaj ne ko waaw ndax am na lu mën a yeggalee ci yàlla ci nit ci lu duhut Serigne mu ne ah kay xanaa salaatu ala waaye nag li mu wuuteeg Serigne bu mat salaatu ala nabi boo ko taqoo mën na laa heggale waaye boo tarxiisee doo mën a la mën a yëkkati waaye nag boo xamee sëriñ bu mat nag boo tarxiisee mën laa yëkkati ba nga mën a taxawaat tegu ci yoon yi waaye moo tax maam xalifa ne ku bëgg a hegg di contre sëriñ mbaa ngay contre Cheikhu Tidiane mii da ko maarifaal duuna cheikhuli Cheikhu Tidiane ruddan ala aqaabi haa'iran fi kulli mawmaati aw yadda'i wala muy xoote bi maqaami cheikhi maqaamab Cheikhu Tidiane ba lay xoote far kadmiya ak xadmiya hee kooku ak zabahoo fenloo na ko maa qaalawoo la nga xam ne wax na ko Moustapha kuñ tànn ko muy Seydina Muhammad mi nga xam ne muulil maqaamaati mooy kii méngale maqaama yi ndax yonentoo ne ko fii sa maqaama toll kenn musu faa yegg te kenn dutu fa yeggati yaay borom xadmiya yaay borom kadmiya kon maqaama bi Cheikh xam ku koy woote ne yegg nga ca yonentu moo lay fenloo moo tax maam Khalifa ne la daa Bulayda nekk na fa Bulayda mooy rii bi Seexu Tijaan dëkkee bis ca Faas fa tabax jàkkaam ja moom ndax mu ne moo tax mu ne la daa bulay nekk na ca bulayda bi faasin ca faas wala bi faasil xayri ca faasu yiw gii baxruhu dan géej géej ak njub géej njub gi daal soo koy seet demal faas boo koy seet demal rii bu ñu tuddee bulayda da nga fa fekk géej ak njub goo xam ne yaram yi ma ngay sànni dawaa man ci dapetu bi am waajil fuyu daati ci ay duusi bëbbu ay duusi may xam-xam ya yu leer ya ma ngay sotti dotteeku waxtu wu ne heure bu nekk na fii faydihi aji nekk la ca bëbbam ga durru asraarin wuru si mbóot wala duri asraaril xaqaayiqi wuru si mbóoti sek dëgg-dëgg yi ma dafil madaraati ànd ak jañ lor ma jalbil masaraati ànd ak bijji mbégte yi mu ne kon soo jàqee ba dem làqu ji ko dana la musal soo jàqee ba dem làqu ji ko dana la musal moom jalbul masaraat la mais en même temps daful madaraat la lépp lu la doon lor nga ragal ko dana ko jañ lépp lu la doon xemem dana ko xëcc tamit jox la ko ànd ak loolu dana la yóbbalul durru asraaril xaqaayiqi ay wurus yaa moom ay mbooti xam yu piire yu wóor yu leer naññi. moo tax maam Khalifa kam naa la bëri na boo xamee riyan ak mandi min ay irfaani ci géeju xàmmee waariduhu aji naan aji root aji root géej ak seex ga di wir don wax bilaa mu kaabadatin ci lu dul jànkuwanteeg ay coono. wala naat ci lu dul jànkuwanteeg ay jafe-jafe moom de man nga caa naan ba màndi doo sonn comme la daloon gaayu gaayu yàgg ya bala ngaa mën a jëriñu ci seen tariqa ya da nga summeeku say dàll takkaayu liggéey bay bëgg a dee doo lekk yàpp doo lekkati naan doo naan ba màndi doo too nelawati coono booba yëpp cheikh moom teggil nañu ko moo tax euh, waaja di ko tagg ne euh, sëñ kër Si mu ne moom de dafa yar taalibeem yi ci lu duhut xalwa keneen ku dut moom dafa yar taalibeem ci ak wéetaay rabba bila xalwatin asxaabahu alanan loolu nag wutee nag ñi nga xam ne dañoo yar seen taalibe ci xalwa kon duñ benn moo tax maam xalifa ne man nga kaa am naan ca ba mandi yëg la gaaya di yëg doon la gaaya doon bilaa mu kaabadatin wala mu anaati doo jànkuwanteeg ay coono doo jànkuwanteeg ay jafe-jafe moo waral yaaru bu fatin bari na ku beeko mu biinun gu bir naa la xam na taabi'oo ku topp seexu tiyaan topp seex yàgg naa maye fatxul mu biin laakin ama dëbuum li fi nekk seen baax nag ñoom taalibe ya katmul karaamaati mooy nëbbu ay kara ay karaama feeñal ay karaama bokkul ci mandargaay taalibe cheikh yi ku ca mat da ngay bañ feeñal dara liñ lay jiiñ sax yaa koy feeñal nga di ko nëbbu ay karaama dafa nekk gàcce ci nitu yàlla comme ni góor goo xamoon régal di ko feeñal ni mu nekkee gàcca feeñal régal sax ci jigéen gàcca la waxuma la waxuma la moo tax mu ne is ngir ñoom laayu baal noonu duñ faale bi dunyaa ci xadduna wa sinati ak taaramba faale wuñ xadduna ak taaramba bal li fi nekk xasduhum seen jubluwaay naylu ixlaasil ibadaati mooy xam ak sellal ak jaamu jaamu gi ñuy jaamu yàlla ñu fas yéenee sellal ko dugal ca lu ca bokk génne ca lu ca bokkut bañ caa dugal lu ca bokkut bañ caa génne lu ca bokk duñ ngistal duñ tiitaru duñ wanewu koo ko gis mu koy wan rek bokkut naylu ixlaasil ibadat moo tax maam xalifa ne fal kasfu huññeeku fal kasfu huññi te mooy kasfu xeet la ci karama karaama di xeet bu bàyyeekoo ci ah, maanaam xarqul aada xarqul aada nag mooy cosaan la bu bàyyeekoo ci loxol koy wooteeb yonantu ñu tuddee ko maanaam mucjisa moo tax mu ne yonent bi taxaw dëkkee ne faatu bi xasri suwarin waaye tamit bu bàyyee ko ci loxol ku baax al abdu saalih ñu tuddee ko maanaam karaamatu bu bàyyee ko ci ab woyu nag dara matut muy feeñal yu kenn xamut dañ koy dugal ci buntab istidraaj ci sa nasta nastajridu min haysu laa na kas moomu na nga xam ne xeet la ci karaamatu di wax lu ñëwagut ak huñeeku yu mel noona maam xalifa ne xat xii la waxeef na ne xaydun reegala lil awliyaay ñeel moo waral fa maa du jeng dëxëran diiru jamono lahu ñeen ko ahlul inaayati borom jagleel yi faale wuñ loolu bëgguñ kasfu seen yoon nekku ca yooya xëccoowuñ ko suñ leen ko jéeñee ñi nëbb ko duñ ko bëgg di feeñal ndax ñoom borom mbindeefi la ñuy hut mais hutuñ mbindeefi mu nekk ku mel noona manoon ci ñëpp nag fees tepp tana tekk koo xam ne ak yëngalam moo hëpp yëngoom bokkut ci ñi nga xam ne seen yëngoo hëpp seen yëngal ñu ne kooka kooka mu ne misla xalifati kem xalifa ba Abdoulaye mooy Abdoulaye mooy Alaaji Abdoulaye Ñas asli mooy sama cosaan mooy sama baay man mooy ki nga xam ne xat naa la xam na min hu tukkee ko Seexu Tijaan maqaamaatin ay maqaama muqiimaatin yu sax man mooy ki nga xam ne xajja xaj na lillaahi ngir yàlla rek baytalaay néegab yàlla ba si ban mbir muy aji fag yool wasaara siyaara ji na fii taybati ci tayba xayral bariyaati gën ji mbindee fi xaj na siyaara ji yonantu bi ca ca ma ca madinatul munawara wasaara siyaare na cheyqi sama sëriñ muy Cheikh na Tidiane fii Fass yi ci Fass ala kibarin xànd ak mage laakin la fi nekk yu xarrikoo dana yëngal ko xubbul mulaqaati sopp ak dajee ga xam kom comme xamu ko mu ne ah kay fanaa la xam na daalika loolu le yaqzaanan ci xeew wa saafaxawoo saafoo xante naag baxrul maarifi géeji xam-xam yi muy Cheikh na Tidiane yan boocul karamaati kay balluwaayu tedd nga yi ana man al muhib maay aji sopp li zaati cheyqi ñeel jëmi cheikh ja zu wala hin maay borom ak koy li zaati cheyqi ñeel jëmi cheikh ja kama hama naka la gëlëmee bihi ci sopp ko maj noonu sababaati kuñ sadd di jinne ci cofeel mi ngi bëgg a rek maj noonu laylaa ni maj noonu laylaa meloon ci layla nu ko raw mel ci cheikh na tijaan yi bu ko defee kon ma ngay junji xajak maam alaaji abdoulaye ñes ga su ko defee ak xaj gi nga xam ne ci la dem siyaara ji sayduna muhammad alaaji abdoulaye ñes mi ngi génn xatam mille trois cent vingt huit dëgmal fële di ma faas ànd ak doomam ju tedd ji maam xalifa ñes li tax a jug maam xalifa mooy màkk pour xaji li tax a jug alaaji abdoulaye ñes mooy siyaara ji seex na ahmada tijaani ba ñu demee ba faas maamalaaji des fa bat bu seet mu haddiyal Seexu Tijaan fukki junne pari salaatu fatiha ak ñaar wax ne faham lu ne ci xolam du ko wax ki ko koy fajal mais ki ko koy fajal moo ko koy wax sian maam xalifa continué di dem màkka ne ko bàyyi maa ngi lay nekkal ci gën ji yonantu nga nekkal ma ci gën ji waliyu na ku ne loo xam sedd sa moroom dem nañ su ko defee nag jëmm ya teqali ko mais xol yaa ngay gisante maam alaaji fa la nekk ak fukki junne pere salaatul fatiha ya ba ci kanam rek benn jëmu feeñu ko ku sol yére yi waaye saawiya bi yaay Abdoulaye Niass mu ne ko waaw yaa wax ne da ngaa bëgg kawar ak Seexu Tijaan mu ne ko waaw yaa wax ne da ngaa bëgg dokk ba mu doon téye mu ne ko waaw yaa wax ne da ngaa bëgg maqaamaab bu kawe mooy juróom mbenn la Seex Musa li jaasaal idlaax da ngaa bëgg nga juróom ñaare leen mu ne waaw yaa wax ne da ngaa bëgg da ngaa bëgg parce que nag sa takfiika min zaakal jamaali isharatun wa da'u masunan bil jalaali muhajjaba mu ne ko yaa bëgg yaa bëgg mu ne ko kaañ dem bañ a yegg ci benn néeg ñi fëgg ku fa nekk ne hegg muy Seydil Arab al Muhib Seydil Arabi al Muhib mu ñëw toog la sama ji bëgg yëpp ma ko jur ca kanamam ne ko yaay Abdoulaye Niass waaw yaa bëgg nangam waaw am yaa bëgg nangam am waaw yaa bëgg nangam waaw am ba yooya jeex. mu ne ko ndax xam nga ki fi indi maam alaaji di gesto gisut kenn mu ne ko Seexu Tijaan moo la jëlee ci saawiya bi indi la fii lii ma la doon jox yëpp moo ma ko jox lantinoor laa ci lantinoor amul trois téye dawlin foofa nag la yëkkati lam yëkkati jox ko ko loola siiw na yàgg nañ ko nettali moom lay maam fa di ji fii ne maanaam euh, wasaafahahu baxrul maarif yan bool karaamaati kon moom gis na Seexu Tijaan yàq satan mu def ak moom musaafaha yëkkati lam yëkkati jox ko ko gannaaw ba demee siyaara ji ko jëlee fa lam fa jëlee moo tax bis boobu lu barke la ci El Hadj Abdoulaye Niass maam Khalifa ne fi Majnuunu Layla tolloon passé naa ko ci Cheikh Majnuunu Layla bëggoon Layla mbokkam yëpp dajeeg moom di ko yedd si sa cofeel ci Layla ëpp na lekkatoo ngir Layla naanatoo ngir Layla nelawatoo ngir Layla bàyyi nga nit ñi ngir Layla. léegi nag lu kii sa xalaat mu ne sant leen xanaa ak gërëm leen rek li ma neex rek mooy lépp lu ngeen may yedd yéen a ngi koy daanee ci laylaa yedd gi ngeen may yedd diko ko tudd dafa dolli xar geneen cofeel ci man kooku loo ci man maam kalifa nag ne fi kooka goon ci laylaa fu ko raw laa commencé ci seex na Tidiane looloo waral iqaalu njortu naa gu wér kulla jameel aashiqiina mboolem ñu sopp Cheikh la woñeel ko jameel aashiqiina mboolem ñu nopp la woñeel Cheikh fi lu cofeel taxta imaaraat yi nekk nañ ci sama roon pal waraayaat yi ak sama ron yi drapeau ni nga xamee ne mbindeef yëpp bu yowmal qiyaame ci ron drapeau bi yonent ba lañ ne ba yonent bi ne aadamu wa man duunahu taxta liwaa yi maam xalifa ne ñu sopp cheikh yëpp gëñ naa ne buñ toogee sama ron drapeau lañ ne ma tiim leen ndax ubbu cheikh ubbu tijaan yi sopp cheikh na tijaan yi xutbul awliyaa mi xutbu mbindee fi jumaan boole seen laa wax rayhaanu qalbi mooy gëtt ak sama xol bi wa raahi mooy sama sangara wa huwa moom raahaati mooy samay noflaay tu def naa xubbi sama cofeel sitran muy rido la woo ñeel ko usaanu def na ñoŋeel ma bihaa ci moom an kulli ay yëpp wa an kullil xatiaati wala wala mooy yàlla yi sopp seexa tiyaana tax moo dox sama digganteeg mooy yàlla ba mënumaa moo yàlla sopp seexa tax moo dox sama digganteeg ayib yi kenn duma ci dégg kenn du ma ci gis xan naa la xam na mat yi sama tagg xusnan taar min maxaasin yi ci ay taaram samay taar sama taaram yi la sama tagg yu taaroo wa taaba teey na bi tii bi ca xet ga minu ci moom nasuru euh, wala nga ne bi tii bi ca teey ga minu ci moom nasru abyaati wisaare ay bayti sama sama sama bayti yi ma wisaare ci moom mu nekk xet guy bonni ma nga bonni ca xet ak seexu tijaan ga moo tax kam saa adat ni bari na bu ma dimbalee sifatun melo fi am daay ci ay taggam wa daaka xat na xan was fii walis melal ko kullul ibaaraati mbooleem ibaaraat yi mbooleem firi yi kenn mënu koo wax moo tax ma ne ko yaa seyku yow sëriñ bi yaa xat mu yow mi nga xam ne yaa mottali waliyu yaa nuural wilaayati yow mi nga xam ne yaay leer ak wilaaya yaa baxral maarif yow mi nga xam ne yaay géeju xam-xam yi waay waay yaa badra hidayaati yow mi nga xam ne yaay weeru njub yi yaay weeru njub yi juudoo na ngeen tabe yow kenn waaye da koo màggal bi waslin ci jokk ala zi ibratin ci borom ak xalam wa gilin ku jàq koo xam ne xat taala ma safahu yàgg na ba mu sappee ko xubbul mulaqati sopp dajeeg yéen wa nay la fatxin ak xam ak hubbeeku wa asraarin ak i mbóot wa maarifatin ak i xam-xam faa ak xeeñtu làkkum ñax leen fii kulli xaalaati ci mboolem melo yi haada kii wax wax ji xadimukum mooy seen mbindaan bi fii baabi hadratikum mbir muy nekk seen bunta péyi bi wa maasikun aji ngëb la aji jàpp la minkum ci yéen xablal mawaddaati bu mag cofeel yi fu mu toll mi ngi leen sopp suma salaatu topp doole ko xéewal maa taslimi ànd ak sëlmal xaatibatan boole seen xalal la fi yàlla nekk ci nga xam ne xendahoo nekk na fu moom xat mu risalaati mottali risaala yi mooy yonentu yàlla Muhammad wal aaleeg ñooña wa saxabi saxaaba ya wal aswaagi soxna ya maa xëtafat fekk sab na wuruqul xamaam yi way way caq yi pit pitax yi pitax yi nga xam dañoo xam rëdd wu euh, ñuul ci seen baat ya bi ak saan yi nekk ci ay bànqaas nadiraatin yu nëtëx a nëtëx yi nga xam ne dañoo xam rëdd wu ñuul ci seen baat ya ña nga dal ca kaw bànqaas yu sëq ya di sab feeg loolu mi ngi xam yàlla na yàlla julli ci yonent bi loolu du fi jug mukk kon xaj na ko loo xam ne lu fiy jugati la lu fiy dul jug su boobaa kon nag na yàlla julli si yonent bi rek guddeeg bëccëg abadan gudul te gudul gu fi dul bàyyeekooti lii mooy xasidaab xawsul bariyati bi suñu maam xalifa nges tagg Cheikh na Tijaani radiyallahu taala an maam alaaji tudd ko mu nekk juróom fukki bayti ak ñeent yoo xamee ne ni moom la ko yàlla jagleel lépp mu dotti ko ci jëmmi Cheikh na Tijaani ji Euh, gu tedd ki boo ci dindee salaatu gi rek dafay nekk juróom benn fukki bayti ak ñett tolloog xadi yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dund mu tolloog may yim am te kenn jagoohut ko mu tolloog ñett may yi nga xam ne Seexu Tijaan doon na ko ci moom tamit am ko te benn wëliyu amu ko kon xasida bi xasidaab secret la xasidaab may la li ci nekk ci ay mbóot ak ay secret ñemewuma koo wax te li ma ci réeree moo ëpp fuuf li ma ci xamut li ma ci xam li ma ci xam ak li li ci gën li ci nekk yëpp boo ko bëggee xam demal seeti ku mel ni kalifa bu tedd Mawlaay Xaaji Ibrahim ah su boobaa dana la ci wax loo xam ne tabaarakallaahu boo ca bàyyee ko da nga ca dollee ko te doo ci am dara looy dolli kon maa ngi ñaan yéen ñi may déglu lépp lu ma ci yàq maa ngi koy jégalu yàlla lépp lu ma ci wax mu jub yàlla rek la waaye du man ku gàtt xam-xam laa ku fasaaxa di laa waaye nag ku am cofeel gu wér laa ci Cheikh na Tidiane am cofeel gu wér tamit ci maam Khalifa Niass maa ngi ñaan yàlla nañu yàlla nangul suñu cofeel ci ñoom bu baax a baax am cofeel tabaarakallaahu yàlla nangul ñu ko ci ne ni yàlla toll bañ ñu koo nangul tamit ñun ci ñu ñu toll bool defal ñu tawfiq bool defal ñu taysiir bool defal ñu naataangeeg barke defal ñu xubbeeku fépp koo xam ne yaa ngi déglu xasida bi fu la mën a fekk xaajo boo a xam yàlla na ko yàlla faj ci barkeeb maam Khalifa Niass barkeeb xasida bi mu tagg Cheikh na Tidiane barkeeb Cheikh na Tidiane ñu mu ko tagg ak aajo bu mu mën a doon yàlla mën na ko am na ko sañ na ko yàlla ko yàlla def wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.